yéeni kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf ndayim ñu naan ko méta di ndaw si ñu faatoon te ñu fekkoon ab néewum ca boori Sara ba Touré ga ca Kolda libération nee nañu am na suspect bu njëkk bu ñu jàppagum ndax jàpp ne loxoom génnul ci ñaawteef yi moom waa ji mandat dépôt nañu ko ba ma nga ca kaso ba ki ñu ci njëkkoon tuumal ba tegoon ko loxo di Mouhamed Moustapha Mbaye libération nee ñu ba ñu xóotale enquête ba ca la ñu gisee ne du ca dara yoon na ko ci yëf yi ca la sandarma yu Kolda yu section recherche yu Ndakaaru woto bi topp Aminata Touré Meta moom waa donte ma ngay weddi tuuma yi ñu koy tuumal journal bi nee ñu terewul seetal ko ca yomb ndax enquête baa koy gën di dugal ba tax ma nga ñu tëye ndéegum ca kaso ba tubaab bi ne woon kaso def fa ñaari at di Olivier Brice Sylvain mi ngi ci l'Observateur Olivier Brice Sylvain yéenekaay bi mi ngi ñuy fàttali ne mooy préparateur physique bu école football bii di Dakar Sacré-Cœur bi ñu doon tuumal ne da waxtaan wu ñu doon sàkku ci moom moom Olivier Brice Sylvain li mu njëkk leeral ci waxtaan wi moo di coowal pédophile li ko dugal ci kaso bi dara ci amul dañu ko sosal mu di ni mu ko dundee xew-xew bi ñu dund démb ca jam ñaajo di forum international paix et sécurité en Afrique nañu ko dundee journal yu bari ñu xëyandool xëy nañu ko dundaal ak ñun journal lay fa ñu xamal ci xëtamu njëkk ne njiit Sénégal di Macky Macky Sall wane na ca ndajama yoon wi ñu war a jaar ngir a sociaux yi dem ci yoon ngir dakkal jëfi yuq njur yi ñuy jur le vrai journal nañu lu tax ba Afrique mel ni fu ñu suy poobar ak dal jafe ko loolee la doon càmbar ci ndaje mi ñu ubbi démb ca Ndakaaru te woor koo jeexal tey ji yéenekaay bi boolee ko kit yu mu nangoo ci président bu réewum Cap-Vert ak i kàddu yu mu nangoo ci njiit réewum Sénégal di Macky muy wax ne yi am ci réseaux sociaux yi te du yoon li fekk dakkul jàmm ko kaaraange du yomb ci Afrique enquête dina kay nañu waa ONU di organisation des nations unies ñoom it jot nañu seen wàll bu baax a baax ci waxi Macky Sall yi woon démb nee na waa organisation des nations unies ak ni ñuy doxalee ci tum jàmm mu di seen opération classique de pays gis nañu ne seen doxalin woowee mën a tuta sori national nañu moom président national di Macky Sall li mu sàkku ci waa organisation des nations unies moo di ñu soppi doxin ndax at mu nekk dugal lu mat juróom-ñaari milliards yi ñu amee ko noonee mu ne mooy ñoo ngi wax fanweeri million ngi daw làqu ci déndub Afrique bi di ay réfugié yoo xam ne ñoom ñëpp mbirum terrorisme moo leen tax a daw làqu ji ci xët mu njëkk journal L'As ba tey moo Macky Sall ma nga fay wax ne mënee suta wekku ci financement buy jóge bitim réew ngir bëgg a aar sa bopp suur soit gis ne président Macky Sall li mu am ne njàqare ci jàmm kaaraangi gi ñu bëggal continent bu Afrique loolee la doon leeral bi ndax nee na bu a a yooye ñooñee ku leen yaakaar ci ñuy défendre askan wi yaa ngi nax sa bopp mbokk ak mbokkoo mi ngi xeeñ ci diggante Aminata Touré ak Ousmane Sonko ubbil direct news njiital parti Pastef li di Ousmane Sonko ak Aminata Touré journal bi nee ñu gisee nañu àllarba ji weesu ca Saliga ci Mbour fa la ñu gisee bi guddi la am ancien directeur cabinet Abdoulaye Wade ba woon di Habib Sy journal bi nee na ñu moo dox yëf yi ba mu am direct news di di la ñuy nas kuy nas kuy noccee ay ci moom yëral xët yéenekaay yi xëyee nemmeeku tuur bi Ousmane Sonko di def maire Malicounda bi di Maguette Sène directeur général bu kudd nemmeeku tuur lëndëm la ko tuddee Walf Quotidien xëy di ñu leeralal taxawaayu opposition bi ci réew mi seen digg premier ministre bu Sénégal Amadou Ba pression bu rëy yéenekaay bi nee nañu moom lañu ko teg ci wàllu loi de règlement bi ak it mbiri déclaration politique générale am bi scandale général L'Observateur nee nañu moo am ca ngëriñ ga ca Mbuur ab góor jigéen moo fa doon doxaan nijaayam ba mu jaral ko mu woo ko soppi baatam di jigéen jigéen lu ngir ootal ko